bonsoir chers amis internautes yéen mi safoo duñu bàyyi xel fi ci Public SNTV sa saa su ne ñuy am mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen tey nag seen invité du jour ma dalal ki nga xamante ni euh, mom moy euh, Moussa Silla Moussa Silla nak ñu gën ko euh, xamé mu nekkoon nak ki nga xamante mom moy détenu politique tey nak ma dalal ko fi ñu fas yéene waxtaanee jaar-jaaram ba tay fi mu yexi Moussa ma ngi lay nuyu di la jox sa waccu way wa ma ngi lay nuyu Rama. Mm-hmm. yow tamit di la jox sa wàccuwaay di rafetlu. Mhm. jotaay bi di am mhm. mbégte pour jàkkaarloo ak yow tey. Mhm. d'accord comme ni nga ko euh, waxee Moussa tey nga nekk euh, suñu invité du jour ñu fas yéene waxtaanee euh, sa jaar-jaar parce que tey ku nekk xam na ni bokkoon nga parmi les détenus politiques yu ñu jotoon a woon jàpp Moussa tey boo ñu mënoon a fàttaliku kañ lañ la jàpp ak lan nga def ba taxoon ñu jàpp la. waaw su may wax sama sama jaar-jaar. dinaa sawar. Mhm. mais tam dina ci am ay ay ay ay ay regret quoi mhm. parce que man dama nek ben jeune mhm. mu nek jeune sénégalais dëkk ci dëkk bi di wour dëkk bi numuy démé euh gis ben yalla andil ñu ku melni Ousmane Sonko gaay boy nan ko Ousmane Sonko mu sell mi ñu ñëw ko li tax ma xam ko sax ba ba deglu moy sama ben grand mom ko ñëk wax euh législatif moy bu muy nek député moo ma wax na ma wax ma am ben jeune bu dynamique boo xam ne. Mhm. kooku ko jàppale mu dem. Mhm. naam Ousmane Sonko dafa war a euh, poser candidat. Mhm. dama bëgg jàppale ko ba may tooñ naan ko waaye kuy Sonko yow bu ñu sonal affaire yooyu quoi. d'accord mais mun na ma déglu ko. ma déglu ko. ma gis lu muy wax lu pertinent loo xam ne euh, gis naa ni sénégalais yi ñëpp war nañ ko jàppale man ma ñëw jàppale ko. muy dem nag mu ñëw teg euh, teg lu leer. ñëw bind ay livres. solution bind lépp ñu déglu ko sénégalais yi commencé adhérer. ba mu ñëw nekk député. Mhm. ba fu mu toll. Mhm. ma gis ñu ñëw bu ko néewal doole. d'accord ma ne en tant que sénégalais foog ma foog ma foog ma jàppale ko. Mhm. si jàppale boobu noonu. nag laa si amay tolof tolof dund naa si lu nekk ah. d'accord ok euh, parce que tey euh, euh, gis na gis nañ ni aussi ni da ngaa bokk ci li nga xamante ne moom mooy bu nekk Grand Yoff. waaw sa intégration passive passif euh, ba nga euh, euh, solution bi la wala dama fa avant ngay lire, li livre solution bi Ousmane Sonko bind ba tax yow tay mu convaincre nga ba nga parti bi. waaw man sama dugg si c'est mhm. mun naa mun naa grand la wax muy hommage mhm. Moussa Camara. Mhm. muy dëkk Grand grand bu bu parti bi. mooy bu dara dul la fa nekk. élection. Euh, législative yoy nonou mom mhm. mo nekkoon mandataire au niveau de Grand Médine. d'accord bobu amul kenn ku ko mom moom moo doon mandataire en même temps di dem di superviser euh, bureau de vote yi. Mhm. boobu la ma ko waxoon. Mhm. ma ñew jàppale ko ci liguey bi. jour bobu di boobu léegi ma adhéré euh, padoa d'accord Pastef padoa la démarré. ba nu mu fa taxawalee cellule. yor yorna cellule biir Grand Médine. d'accord waaw euh, mais nag. dama dëkk tamit Grand Yoff. ndax sama papa tam fa la am kër. Mhm. ma dëkk fa dëkk euh, grand bi dina am fay doom baay. Mhm. ba noonu may adhéré si ñaari parti yëpp di salone fii di jongle fii di ñëw des fois massifi di massifié wu fii. Mhm. noonu laa demee tamit ba am relation ak waa Pastef Grand Yoff. waaw noonu noonu sama intégration si Pastef noonu la demee. ba ba nu ma taxawalee cellule. mais ay. ay ay lu ma gis Pastef Padois des fois. Mhm. nu mu ko foogee woon. Mhm. des fois demeewul noonu. ndax mhm. dama fay gis yu ma naqari yoo xam ne man ku ma xam. xam ne si si si si dëgg laay dox. Ah, bëgguma bëgguma ay anomalie ak affaire yooyu noonu. ba ma gis nag Pastef Grand Yoff. ma gis ay ñoom Ngagne Demba Touré fa lañ nekk. ay ñoom Tambidou. ma gis ni ñooy seen euh, nu ñu doxalee. seen kii moo gën structuré. D'accord. par la suite laay gën a balancé wu dem si côté passé grave quoi. D'accord, ok Euh, D'accord. ñu gis ne euh, jour jour bi ñu lay jàpp mu ngi tombé euh, jour euh, Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang euh, ñoom ñaar seen kii bi fële ca tribunal bu Dakar. waaw waaw boobu la ndax. Mhm. seen procès ñoom ñaar seen procès maam moom Mame Mbaye Niang. Mhm. mooy le 30 bi. Mhm. en tant que sénégalais gis naa Ousmane Sonko woolu nañ ko. dama xam ne ñii jubluwuñ si dara lu dul ko. taxal ko tej ke ci kasso bi mané mm-hmm. man dina baye sama lepp dem soutenir ko mm-hmm. waaw bobu nak lay def euh ñu nak passef Grand yef ak yep mm-hmm. ak passef padwa passef euh, parcel ñu ne won ñu déggante comme patriote dañuy xamanté ñu ne li fokk ñu jéem taxawal dara lo xamné dinañ am ben ben groupe de résistance ben groupe de résistance légui non lañ ko taxawalé ba action yu doom am action yu doom am côté Grand yef yep wala affaire yooyu noonu ñun bokk nañ si ñoo xam ne tey dañ dem taxaw di di di bañ. Mhm. ak yooyu. Mhm. par la suite lañ ko woo buñ ko woowee ñu ne woon dañuy dem soutenir ko. si mhm. lañ dem cité kër góor gi. ñëw taxaw. Euh, taxaw si buntu kër gi. gars yi mhm. nañu ñu jugee foofu. Mhm. ñu jugee foofu ñu ne la ñun duñu jugee foofu. d'accord Ousmane Sonko mënuñu ko bàyyi moom kese mu dem. Mhm. par la suite la ñuy am bagarre ak policiers yi. jàppal ak bàyyil affaire yooyu ñu am arrestation yi si la ñu jàpp am ñu bi nga tey euh, bi nga doon jugee euh, sa bërëbu liggéeykaay pour dem pour dem da amoon intention pour dem manifester ji wala yow da ngaa jugee nii rek sa bërëbu liggéeykaay pour ñibbi fi nga xamante moom mooy sa kër waaw non man dama dama amoon intention ne man damay dem gunge Sonko. d' accord yi nu ngi koy paratorer nu ngi koy faral defee. mais par la bu ñu demee ba foofu ñu ne ñu doo leen mm-hmm. dugg si cité bi. Mm-hmm. ñun nag parce que dañ koo barricadé woon man ma ne. dañ mm-hmm. da nga koy jéem a def euh, silencieux. waaw man dañ ko barricadé woon. léegi man ma ne. man foog ma dugg. foog ñu dem ak sama gars yi ma àndaloon. ñu nekk foofu di jàppante ak policiers yi. ñu gaze ñu. pour que ñu génn mm-hmm. résister ba ñu mm-hmm. jàppee am ñu ñu jàpp am ñoo xam mm-hmm. mais ñun moom buñ fay dem objectif dem Sonko mais bu fa bu après par la suite si la ñuy xeex ak policiers yi ba ñu jàpp ñu quoi. d' accord ok ñu jàpp leen euh, dugal leen fi nga xamante ne ni euh, moom mooy euh, ci biir auto police bi ba nga fa fekkee woon tey bañ la jàppee ba yóbbu la fa da nga fekkoon ñeneen ñi nga xama xamante dañ leen jàppoon si manifestation bi. waaw waaw fekk naa ñoo xam ne dañu ñu jàppandoo woon ñu bëri. Mhm. si manifestation yi ndax bu ñu ñu jàppee yóbbuwuñ ñu direct ndax bu ñu jàppee sax dañ ñu jàpp dugal ñu si blende bi commencé assaar na wu commencé assaan yu ci seen kaw torture ñu dañ nañ fi ay torture yu yu yu doy waar mhm. waaw maa ngi fàttaliku sax am na ñaari étudiants yu bokkoon si si si suñu groupe bi mhm. ñoom dañ leen dóor dóor yu métti mhm. dañ ñaari étudiants yooyu noonu dañ leen dóor dóor yu métti ba gaañ leen waaw léegi bu ñu dóoree si biir blende bi jàpp ñu yóbbu ñu yóbbu ñu police foire bu ñu yóbbee police foire ak suñuy blessure ak affaire yooyu noonu bu ñu demee commandant bi sax maa ngi fàttaliku lii lan la quoi moom da ko mhm. jaaxal. mu laajte waaw nan la mun a demee nii ñun ñëpp di nàcc. Mhm. léegi nit ñi ne ko euh, euh, waa ñun ñoom yóbbu waa GIGN la. d' accord waa GIGN ñoom ñoo leen yóbbu ñoom ñoo ne ko carrément ñun ñoo dem xeex suñu biir. yéen yéen a doon xeex si seen biir waaw xeex suñu biir ba gaañante. Mhm. ma ne ko loolu c'est faux loolu mënul nekk yéen ñu doon torture assumer leen seen responsabilité. d' accord par la suite la ñuy dem dugg bu ñu duggee. Euh, ñun si jàppoon mooy booy étudiant yi ba gaañ leen ñu ñu seen bopp yi ñu kii seen rëkkal seen loxo yi. wala mhm. si lañ dem euh, hôpital Samy. Mhm. mais yow bokkoon nga ci ñi demoon wala yow demoo woon. non man bokk ma si ñu demoon. parce que man amu woon boobu noonu. ok wah man ma mais buñ ñom buñ dem démé sax la leen doom torturer wat mhm. parce que ñom dañ ne ñun pourquoi comme man luma né mhm. wax commandant bi ñun ñol yeen leen torturer pourquoi ñun ñi wax lolu ah d'accord en ah ok euh, comme ñom euh, comme ñom tay dañoo bëggoon ni ñom euh, li leen jotto na wona wax yeen ngeen affirmer bu lolu mais sans pour autant yeen ngeen wax li leen jotta dund ñu jotta dund mais nak ñun dañ taxaw wax dëgg bi da leen carrément dañu torturer mhm. te lolu du yoon nak par la suite bu démé euh di dem hôpital Euh, ñoom subiraat nañ foofu ay torture bi ñee demee hôpital waaw yéen dañ leen doon euh, torturer dañ leen doom torturer waat léegi bu ñibbisee lañ ma koy wax bañ naan ma sax yow am nga sax soo demoon du baax si yow mhm. parce gaay ñu ngi la doon laajte neena yow yaa doon wax foofu commandant beeg affaire yooyu quoi mais nag. man xam naa li tax ma ma ko doon wax. ndax man dama jàpp ni Sénégal fii torture. Euh, dañ ko fi banaliser quoi. war war war war waru fi am. ndax nit ki su la jàppee nga def même soo reyee nit sax war na la mun a jàpp. jébbal la juge. juge suy àtte lu mu dogal si yow nga xam ne yow loolu sa faute la yaa ko def. mais torture moom dañ koy ok ñu jël leen yóbbu leen fi nga xamante ne moom mooy euh, brigade gendarmerie bu Foire ñaata fan moom ngeen fa def balaa ngeen di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy procureur. waaw ñun am nañ retour de parquet def nañ 6 jours. 6 jours retour de parquet bu ñu xëyee. Mhm. foire dañu yóbbu central bu ñu xëyee central ñu yóbbu ñu cave ñu war a jàkkaarloog procureur. Mhm. si biir jàkkaarloog procureur bi am na ñu jot a jàkkaarloog procureur ñoom ñu mhm. defeere leen. d' accord franc grand délit mais ñun dañu delloowaat retour de parquet. ok bu ñu delloo si waatee. yóbbu procureur bi dégluwu ñu dañu yóbbu si directement si juge sec. juge Mamadou sec waaw juge d'instruction bi. mu ñëw dégluñu. d' accord. bu ñu dégloo ne la yéen yéen lu ngeen luñ leen toppee yéen a ko def. Mhm. ñu ne ko ñun defuñu dara. d'accord mun nañu ñu ne ko lan lan la ñuy toppee mu nañu trouble à l'ordre public. Mhm. manifestation non autorisée. ñu ne ko mhm. ñun defuñu ko. dañoo demoon gunge Sonko. te loolu pour man euh, amul benn loi bu ko interdit. noonu. Mhm. mun nañu da ngeen di jàll. ñu ne ko lu ñuy ñuy jàll jàll pour lan. Mhm. lan lañ def mun nañu daal da dem mhm. jàll xaar. mun naa leen da ngeen di defee leen di defee rek ngeen dem toog xaar. ah léegi ñu ne ko ñun léegi suñu demee kañ la ñuy taxaw. mun nañu da ngeen dem toog xaar instruction la seen. seen noonu rek waaw kay. bu defee ñu D'accord. Si nous l'avons fait, D'accord. Ok, euh, def euh, retour de parquet 7 jours. Mhm. Euh, mu metti parce que ku nek xamna ni retour de parquet ay jaabante la. Tay da ngay dem suba nga delu wat nga demat di delu wat. Mhm. Ngén dund lolu ba jour bi ngén di jakarlo ak nga xamanté mom moy le juge Mamadou Sek. Mhm. Légui mu dolé mandat de dépôt. Mu leer len di tay da di dem fi nga xamanté ni mom moy rebeus. Ban heure ngén yegg rebeus? Wa ñun ñi ngi yegg rebeus kon wéru koor la tombé lon ni may fatlé ko dama ko dañu um mbirum koor. Mhm. même pas dix jours ñu jàpp ñu. Mhm. bu ñu demee nag woor lañ dugaale rëbës. woor ngeen dugaale rëbës tamit heure bii la. Mhm. presque si vingt heures. presque si vingt heures. bu ñu demee fekk na nit ñu ndogu. ñu dem euh, ñu euh, bu ñu bu ñu njëkkee yegg sax. dañ ñu dugal futtuñu. futti leen ba pare futti ñu ba pare mooy comme gars yi duñ koy defee futti la comme ni la sa yaay juree. ñëw. xool ndax yoroo ay indice ak affaire yooyu noonu. Mhm. bu ñu paree si loolu ñu wat ñu. Mhm. bu ñu watee ba pare ñu yóbbu ñu ku nekk ñu détaché yóbbu la. Mhm. départagé ñu ku nekk sa chambre bu nga waroon def. man maa ngi fàttaliku man chambre 11 laa rentré. chambre 11 ah, moom nga rentré bu mu fa ñëwee chambre foofu chambre mineure la sax. mais chambre bi feesoon na del del del del. ak ay nit ak ay nit léegi man bu ma li ma gën a impressionné mooy ma ah. ñëwee.

ñu jàpp ko amuñu fenn fu ñu koy yóbbu lu dul di ko booleeg ay xale yu ndaw. Mhm. paqueté ko lu ñu naan paquetage. Mhm. ndax 22 heures foofu la ñuy tëdd. Mhm. nga nga dugg si weeru koor. ndogu woo. heure tëdd jot ñu ne dañuy ne

ku dof dof doo tëdd dégg naa ñu naan des am na ñoo xam ne dañuy toog man bu ñu nee yëg rek ma njëkkante yëg mhm. ndekete foofu mooy daj dëpp bi d'accord waaw léegi bu ñu demee ñu mhm. paqueté ñu ndax nii ngay tëddee kii day tëdd côté mhm. wetu keneen ki ñëw teg boppam wetu ñu ñëw euh, jël seen tànk buus mu sës keneen ñëw roof te noonu daan ngeen koy jàppee ba keroog ngeen di yeewu waaw noonu lañ koy jàppee léegi nag man comme tàmm ma ko dem naa ba ay côté une heure du matin sama ma xam ne fii lii mun ma mun ma koon ne ma jóg Euh, taafantaloon dëpp nga dem sawi mhm. mais bu ma wàccee si lalu bi mhm. bu ma wàccee nag sama tànk bi sirit bi deret bi doxul dama wàcc rek daanu daanu si ay nit mhm. chef de chambre bi sax maa ngi fàttaliku mu ne ma yow looy def nii commencé amoon rek ñoom seen waaw dañ ni aalu waaw kay si kaw nga daanu affaire yooyu ma ko yow après ñu xaw a jàppante foofu quoi ma ne ko yow yaa ngi ma paqueté fii ma wàcc man dinaa tey daanu si nit quoi ñu xëccante foofu après mu ne ma looy def ma ko damay tuural ndox nga yëg ñoom loolu la ñuy waxee seen wax du neex. d'accord ma xam ne tey. Mhm. natt la quoi. Mhm. ma dem def lu may def. Mhm. jëm yéegaat. Mm-hmm. ñu ñu paqueté waat ma ba suba mais guddi boobu métti woon na mm-hmm. si man trop trop mm-hmm. trop trop d' accord euh, parce que euh, yaa ngi koy wax sànq nga ne da ngaa jékki-jékki euh, sa tëddin bi xawoon a métti nga wàcc dem tuur ndox ñëwaat mm. mais tey bi nga tuuraatee ndox ñëw da nga faa fekkat sa place wala da ngaa mujjee def comme tey ñenn ñi parce que souvent dañuy dégg ñu ne bu fekkente ne da ngaa déplacé wu ñëw sa place moom da nga koy ñàkk waaw man sama place moom bu ma ñëwee perte ndax bu ma ñëwee dama ñëw ne waa ji ku ma tëdloon fekk naa la ñoom ñu seere mhm. tourné defaru mhm. man leen pousse leen ñu faalewu ma kenn du la faale quoi mhm. ma ñëw taxaw man a ah, a a ko fa laay tëdd ñii nanguñu pousse mu ne ma tëddal ma ne ko fa laay tëdd léegi nga jaayante ko ba tëdd waaw léegi nag mu ne ma ñëw boobu après si la ñëw dugal tànkam puus puusal ma man ma wetu dugg tëdd. mu dugal tànkam si di si di si diggante nit ñi ba pare quoi def nii riisu noonu affaire bi écarté wu tuuti mu ne ma dugalal sa mbagg. ma dugal sama mbagg man tam def nii tëdd. léegi guddi bi métti woon na trop. mais bu ma ñëwee bu ma jógee deux jours trois jours ma comprendre. Mm-hmm. ni fii affaire de bandi la quoi. affaire de bandi waaw yaaram yow loolu nga gis waaw yaaram bi doxul quoi. ma changé. Mm. Euh, léegi tey lan moo tax euh, nga ne foofu noonu affaire de bandi la yaaram bi doxul. waaw ndax dama gis après nu nga doxee lu ñu naan soo ñëwee si kër. Mm-hmm. gis ñëpp def euh, yaramu neen mm-hmm. ma gisee mm-hmm. lu dañuy jàll jëgg sa kaw. ma ñëw troisième jour après tëddaan naa si kaw. troisième jour ñu ne yéegal ma bañ a yéeg chef de chambre ma yee yéegal ma ne ko du ma yéeg. comprendre mu ne lu tax doo yéeg affaire yooyu ma ne ko fii laay tëdd comme nit ñi quoi ndax si suuf moom mooy rang bi quoi ah tane daal ci yow foofoo tane mhm. ndax foofu nu mu deedee di nga mhm. mun a tëdd jaaxaan ndax yéen ngay wetu ok di nga a tëdd jaaxaan quoi mhm. yenn mag yeeg yooyu noonu ñu fa xaw a yàgg lañ fay tëral d'accord ma ko man du ma yéeg quoi du ma xale bay yéeg si kaw affaire yooyu mu ne ma da ngay ko ma yéeg ñu xëccante mu ne ma dama lay fëggal porte ndax foofu loolu fa yow foofu ñoom garde bi loo def. Mhm. lu jaarul yoon ñoom amuñu droit dóor la. ah a chef de chambre bi moom ah, day fëgg porte garde yi ñëw mu boole la ñoom ñu dem ñu torturer la soit ñu sanctionné la muté la. Mhm. yóbbu la beneen chambre wala dara. Mhm. mu ne ma dama lay fëggal porte. ma ne ko fëggal porte yi affaire yëpp. nga wax ko loolu. waaw mu xam ne man sës naa. après mu bàyyi ma ma tëdd suuf quoi. noonu laa def ba imposer tëdd suuf. par la suite

à 11h. suba. 3h à 5h. Dégal. 15h à 17h. Nous mhm. ñun nous, en tant que patriote nous sommes pour mhm. waxtaan. Mhm. ñu def fa deux mois. pour wax ñu dara. d'accord yéen ñëpp ñu ne ñun devons ñu def foog ñu mëne acte. ñu nous acte c'est mëne. mooy. dañuy grève de la faim. yëglu quoi ndax suñu ñu bàyyee d'accord. ndax gaa ndax prisonniers yi sax loolu la ñu doon too tooñee. Mm-hmm. ndax boobu moment boobu ñu ngi doon euh, mm-hmm. di leen liberté daal. mais ñoom ñooñu doon moqué quoi nan ñu ngeen di dee après élection yi rek. ah d' accord ñoom ñoo leen doon tooñ di leen ko doon def euh, euh, comme genre ku leen doon kaañoo naan leen euh, ñoom ñu ngi dem mais ñoom dañuy des ñun dañuy des ah, ah, yéen da des mais ñoom dañuy dem waaw kay léegi ñu ne ñun foog ñu mëne d' accord waaw maa ngi fàttaliku ñu ne ñoom Diop ñoo nekkoon mm-hmm. sànq foofu noonu si couloir bi ñu wax mm-hmm. léegi nag bu ñu waxtaanee loolu mm-hmm. par la suite bu kii am na benn booy boo xam ne Euh, fàtt naa tur bi sax mais moom dafa toog si nopp mu dem wax ko chef de chambre bi. xanaa euh, xanaa tey moom euh, moom daa nekkul woon patriote. comme yéen wala yéen moom fa ngeen ko fekkoon. waaw moom bal perdu la comme gars yi ni ñu koy waxee bal perdu mooy am na ñu bëri ñun jàpp ñoo xam du ñu ay patriote. manifester wu ah, d'accord ànd ak leen jàpp rek indi leen ramasse rek andi leen. ok moom comprendre mhm. léegi ñun résistance bu ñu mën a mëne moom mënewu ko léegi bu mu waxee loolu ñu ne dañuy grève de la faim moom mu ragal dama wax ko chef de chambre bi mm-hmm. bu mu ko waxee chef de chambre bi chef de chambre bi dama wax ko waxee ñu ne dañuy génn d' accord euh, euh, mais tey Moussa yéen naka ni euh, si seen biir dafa am ku fa seen waaw léegi nuñ ko xamee dañ leen ko wax nuñ ko ko xamee mooy mm-hmm. avant chef de cour bi di ñëw discours bu mu ñëwee ba lycée. Mhm. chef euh, kii euh, patriote yi. Mhm. ba dem. Mhm. la rumeur yi commencé daw. d' accord ñun dañ teegoon dañuy génn ñu commencé kontaan après chef de chambre nañu yéen dal leen miite yóbbu leen chambre yi gën a métti ñu ne ko pour lan affaire yi mu ne grève de biir ñu naan kan moo war a senn loolu quoi. léegi par la suite la ñu euh, laajte. chef de chambre beeg affaire yooyu mun nañu booy boobu moo ko wax moo leen ko wax quoi. d'accord waaw jàpp leen yéen daal préparé leen seen bagage da ngeen di dem. affaire yooyu quoi après si la ñuy wax. Euh, seen seen diggante. Mhm. ak xale bi naka la mujjee woon. waaw neexul parce que ñun man maa ngi fàttaleeku. Mhm. information yëpp si man la ko doon jëlee parce que man xam naa ay. Ah, xam naa daf laa jege woon daal. xam naa ay de telle sorte que ni tey euh, yow mhm. amaana comme te njottoo woon ni moom euh, dina mës a toog. nga wax ngeen waxtaan dara mu dem mu yooleel da wax ji ko feneen. waaw ndax moom tey patriotes yi organiser woon nañ organisation boo xam ne suñu lekk toujours dañ ñuy dugal si biir lekk ñun ñu koy jox si lekk yi mhm. tamit avocat yi suñu seetsee lu ñu mhm. wax ñu ñu yeggee leen ko ne leen muñ leen léegi mu jeex avocat yi mhm. nee nañ lii nee nañ lii comprendre léegi fooguñu ko woon si moom moo tax bu bu mu amee ñun dal nañ ci kawam ne ko li tax nga wax loolu mu ne moom dafa ragal ko mu ñu ñu ñu ñu grève de la faim. ñu ñëw mhm. fii du ñu sonal ak affaire yooyu. d'accord moo tax mu mhm. mu wax ko chef de chambre. tey loolu am. ñu bind seen tur yi. Mhm. Euh, si liste yóbbu. waaw léegi ñu jël seen piste. <laughs> woo ñu benn par benn man maa ngi farle chambre trois lañ ma yóbbu. Mhm. nga jóge onze dem trois. waaw foofu chambre criminel la. Mhm. ñeneen ñu yóbbu leen chambre dix. chambre neuf mooy chambre yi gën a métti si kaso bi fa lañ leen yóbbu. a commencé. d' euh, mhm. euh, yóbbu la chambre trois bi nga dugg see chambre trois. waaw ma dugg see chambre trois ndax chambre boobu dafa chambre bu rëy la. ah dafa yaatu. dafa xaw a yaatu doy na ni comme seen plateau bi ni mu xaw a doy. ay ay guddaay bi quoi. wala ay 9 mètres. d'accord léegi mais lu fa nek ci nit ñoo ñoo jaaduwul ay 200 personnes ñoo fa nek. ci ben chambre bu mat 6 mètres. waaw te benn toilette dafa nekk. Mhm. léegi problème bi mooy ndox bi su xëyee suba si ndox bi day coupé. Mhm. ba 22 heures lay lay lay tijji. su mhm. xëyee 6 heures matin day coupé waat. léegi nit ñi war nañ sangu. nit ñi war nañ root lu ñu naan. war nañ def loolu yëpp. léegi loolu moo causé woon problème moo tax lu ñu naan tokkoro. yooyu yëpp. moo ko waral quoi. ndax mhm. nit ñi dañuy guddi bi tàngaay la tombé. Mhm. dal lay nga ñaq. soo mhm. xëyee war a sangu doo sangu. léegi sa yaram yi commencé amay picc ñii seen yaram yi am ngay góom. lu doy waar daal moom mi fa quoi. d' accord tey euh, nga dem fi nga xamante ni moom mooy euh, chambre 3 est ce que yéen ñooñu noonu nga xamante ne ni tey dañoo jëloon seen i tur si biir liste bi euh, fekk nga fa yenn patriote wala yow dong la woon foofu noonu. waaw motoon nañ fa sàmm 79 mais. organisé mhm. woon nañ organisation boo xam ne. Mhm. ku fa dugg rek dañuy jël sa tur. d'accord ndax am na ay colis yu dugg ay meew. Mhm. ay yére. ah seen dund bi daal dafa doon ñëw. Euh, normal ak seen ay yére. waaw léegi lu ñëw rek. dañuy dañ koy xool ñu ko jox. ñu ko gën a soxla quoi. loolu lañ organisé woon. ah d'accord mais tamit loolu noonu tamit andiloon nañu problème ndax bandi ñun. privilège bi ñu am. Mhm. ñoom amuñu ko ñoom yàgg nañ fa ñi ngi fa def trois ans. Mhm. ñi def fa cinq ans. Mhm. ñoom seen privilège bi euh, mooy que ni yéen euh, seen ay mbokk dinañ leen yóndee ay dund ah. euh, yóndee yóndee leen tamit ay yére ñoom amuñu ko. parce que ñun tey ku si nekk si kër nga jóge woon. bokkul ak tey benn malfaiteur boo xam ne seen waa kër mere nañ ko àndalatuñ ko dara seen jabar yi dina leen àndal ñii waa parti bi itam dina leen jàppale léegi nag ñun comme manqué wuñu won dara ñom mm-hmm. dafa amone ben demoon ba am ben genre clan bu am foofu moy mm-hmm. ñom ñuy zalu d'accord côté bobu non mm-hmm. légui nak day motax day am foofu xex si sen bir waaw day am biir chambre 3 entre malfaiteurs yi ak yeen ak ñun d'accord ndax demoon nañ foofu ba deux groupes lañ defoon même patriote dañ am sen équipe de football ok di def sen di def sen di di def sen defaar sen jang sen alcorane ñuy def sen wasifa di sottante xalat ñom tamit amoon nañ seen groupe de football. d'accord yoo xam ne malfaiteurs yi da ngay gis ah. ñu ne la Baye Fall yi foofu. dañu am mm-hmm. seen groupe de football. di football ak patriote yi. Mm-hmm. noonu daal la fa demee woon quoi. d'accord ñu bokk lu ñu gëm ñoo doon bokk toujours. d'accord euh, d'accord euh, maître maître Moussa est-ce que tey mm-hmm. nekkul ni euh, le fait que yéen ngeen manko benn manko bi parce que parce que tey ku nekk xam na ni genre chambre yooyu noonu souvent dañuy soxla partage mais yéen tey est-ce que yéen a ngi doon partage partage ak ñoom. waaw partage bi moom mu ngi doon am quoi ndax ñun suñ ñëwoon dara njëkkoon dugg rek mm-hmm. suñ ko tegee ba pare suñ ko compté dañuy génneel loo xam ne chef de chambre bi moom lay am chef de chambre bi mooy homme de chambre beeg chef de chambre beeg encadreur beeg yëpp léegi ñoom ñooy partagé euh, pour ñeneen ñi wala ñoom dañ leen di jox seen part ba pare ah ñoom d' accord mais tey mais mais aussi euh, pour lan euh, ngeen di leen jox ñoom seen i part tout en sachant que ni peut être ñoom si biir kaso bi ñoom ñoo leen gën a mun a ah, am tey benn kii bi

mais ñoom la ñu organiser chambre bi ku fa ñëw loo dugg. di leen jox seen cër. léegi euh, léegi ñoom euh, boo leen joxee ñoom ba pare léegi ñeneen ñenee ñi. ñeneen ñi tamit ñoom dinañ partager ak ñoom. seen ay coordonnées kon suñu tey ba xaaj ko dañ am lu ñu génnee na la jox ko gars mm-hmm. mais du doy. Mm-hmm. dina am ñu si jot am dina am ñu si dul jot ndax mënoo jox ñëpp ndax loolu ay alalu jàmbur la mhm. am na ñun des am na ñu ñu ko jox mhm. mu war a yegg si ñoom kon mënoo ko ñëw di ko partage si néeg bi ak mhm. ñeneen mais di nga leen may quoi mais malgré tout day am ay jaloux yu fa am affaire yooyu man maa ngi fàttaliku rek man mii rek am naa fa xeex boo xam ne xeex naa ko fa benn yàkkan ak lañ ngeen jotee waaw lu ñu jotee du lenn lu dul xam ñun patriotes yi suñuy tëdd ñun ñooy Euh, woowee deux vingt deux heures ñu ne ñëpp tëdd. Mhm. dañuy toog di waxtaan. ah yéen doo leen nangoo tëdd daal. dañuy di toog di lang waxtaan. di lang waxtaan. Mhm. des fois defar suñuy sekk et suñuy cere di lekk. Mhm. léegi benn jour dama doon defar sekk. di defar cere. suukar bi tuur si suuf ci suuf quoi. d'accord bu suukar bi tuuroo. moom mu ngi quatrième position. xam nga ñu ma dendal yëpp ay patriote lañ. ñoom waxuñu. ma jug di ko defar. mu commencé di aalu quoi. moom waa ji. waaw muy aalu. yéen patriote yi xaw lan yéen da ngeen da lañ su lu ngeen da ngeen bi. xatal ñu quoi ñoom ñu ne ñun bu ñu duggee foofu ba léegi ñoom seen tëddin neexatul. Ah, seen ñoom dañoo commencé xat daal. léegi sàmbur yi nu mu feesee. loolu dañ mm-hmm. ciy salu. d'accord loolu mm-hmm. ma ko. Mm-hmm. ndax man am na ma wax. tëddal sa kaso comme ni ko gars yi di waxee. mooy bu fi jéem a xeex ak di andi sa sa dossier. léegi mu ñëw di ma asaar na wu si man man faale wu ma ko. ma bale lu may bale nettoyé ba pare tëddaat. mu continué di wax ba sama copain bi ne ko Adama Ndiaye. moom sax maa ngi maa ngi koy rendre hommage. Mhm. moom def na fa un an. a la génn ah, ah génn na. génn na si si si si si bi moo ko génne. ok moom maa xam jaam moo yoroon dossier mhm. mu ne ko yow kii yaa ngi wax ak moom faalewu la. Mhm. affaire yooyu quoi. doo noppi rek mu daggal ko. saaga waaw bu mu ko saagee ma ne ko Adama yow yaa ko def. man lay waxal. bàyyi ko quoi su waxee sonné dina noppi. rek mu daggal ma ma nit quoi. ma ne ko ah. booy bu ma saaga waa rek mu dóor mu doon la arrêt. waaw après ñu jóg bagaar dóorante foofu noonu. maa mm-hmm. ngi fàttaliku sax dóor naa ko. ba mm-hmm. gaañ ko. te foofu ku fa nàccal nit da ngay dem cellule. Hmm? waaw léegi nag bu mu ko nàccalee gars yi na ma nag fëgg porte yi garde yi fëgg porte yi garde yi ñëw. Mm-hmm. ak deret beeg affaire yooyu man boobu tam sama yaram tàng na. garde yi ñëw ne lii lal affaire yooyu ma xaw a mer xaw a aalu foofu. aalu foofu si seen kaw ñoom waaw jàpp ma.

chef de poste bu fa nekkoon moom mu mm-hmm. comprendre ndax gis na ma foofu. Mm-hmm. amoo fa benn problème ñun mm-hmm. football la ñuy def. ak solidarité ak affaire yooyu. mu mujj yóbbu jiw mooy yóbbu solil daf ma comme tey euh, comme tey euh, mun nañu ne sa bonne euh, conduite foofu noonu moom moo la fa may ma may chance léegi comme daf ma waroon yóbbu selil ku nàccal da lay yóbbu selil toog la fa ay une semaine sanctionné la wala ñu torturé la mais man bu ma expliqué te dégg naa foofu tamit moo gën a métti moo gën a métti ndax foofu néeg bu ndaw la ba pare amul mooy loolu quoi mhm. léegi nag ñëpp loolu lañ ma ragaloloon ñi nga def tëll yóbbu cellule mhm. avant garde yi ñëw mhm. xoolal li nga nàccal tey nga dee affaire yooyu quoi man tamit mer naa na leen je ma euh, sa chambre yóbbu la chambre bu gën a métti d' accord ñu changé waat euh, a foofu moom tamit foofu. Mhm. xet bi ndax foo la foos foosu kaso bi yëpp nekk. ah foofu la nekkee neuf. foofu la nekk te bëri na ay ay kañ ak ay affaire yooyu quoi. xet bi

boobu noonu yëngaloon ngeen fa. waaw foofu am na yëngu-yëngu bu métti sax. ndax gars yi ndax majeure partie euh, prisonniers yi dañ ne woon garaawul quoi. nañu mhm. téye mais élection yi su jeexee xam na ni Sonko day gagné réew mi. Mhm. te su gagné réew mi ñun ñëpp dañuy génn. Mhm. loolu motivation la surtout motivation la woon léegi bu mu demee bañ ne dañ dàq. élection yi comme euh, gëm-gëm boobu noonu euh, moom moo leen doon gën a forcer pour que pour que ngeen mën a dund seen peine bi foofu bi. ku mu jeex mhm. te yow soo fi génnee héros ngay doon affaire yooyu quoi mhm. loolu source de motivation la woon si moo tax ngeen ñëw toog euh, dégg njiitum réew mi ne dañ koy ajandi ah léegi nag bu ñu dàkkee élection yi ñun ñu ngi doon njort ni su ko dàkkee lu mu ndaw ndaw trois ans mhm. léegi su waxtaan suñu ah. biir ñu ne lii duñ ko nangu yéen patriote yi encore yéen ñëpp ngeen waxtaan encore seen biir ñu ne lii duñ ko nangu ñu ne lan la ñuy def mooy ku nekk sa secteur soo fa demee nga sensibiliser fa nekk heure tel dañuy yëngal comprendre heure tel jot heure bi jot nga dégg bureau yi fii nga xam ne ñi commencé nañ gars yi yëngal ñuy dóor porte yi ñuy déconné affaire yooyu noonu. Mhm. garde yi ñëw après garde yi ñëw tiim. tiim tiim tiim kii bi. ak seen ak seen seen seen seen pistolet yi. Mhm. tiim ñu. Mhm. affaire yooyu gars yi ñëw dugg. Mhm. gars yi déconné xam ne mënuñu nu maîtriser gars yi dóor ay gaz. dóor foofu euh, euh, mais tey xam nga tey Moussa euh, ku nekk xam na ni gaz sagam sa sibiti sax boo ko dóoree nit ki nu mu koy def mais yéen tey seen cellule bu xat boobu noonu bu ñu fa dóoree gars yi sëqat beeg yooyu noonu mooy ñoom noonu lañu def pour mun a maîtriser patriotes yi ndax mhm. moment boobu amoon nañ détermination boo xam ne mhm. su dul woon loolu xeex lay doon rek ndax ñun gars yi ñu ngi doon fëgg porte yi naan dañuy dajji kànnaar genre mhm. xam nga mhm. boobu jaraloon na la quoi mhm. nga dee sax moo la ko gënal ndax lu waroon daj foofu nga dal si dolli waat ay trois ans boobu gars yi loolu fo àll boobu la amoon léegi bu ñu dóoree rag rak ramagel ba foofu nit ñuy sëkkat affaire yooyu noonu gars yi ñëw maîtriser quelques patriotes yi ñu ñu ko déclenché woon yëpp dañ leen miitawaat ndax am na ñu si nekkoon ay euh, appala mooy foofu la sàmbur comme soo duggee tey chambre yu bon soo amee relation. da lay muté yóbbu la chambre yu baax. d' accord foofu tam ñu fa yëngaloon yëpp leen mujj andi si chambre. ñoom ñëpp ñu delloo si waat leen si chambre bu gën a métti. waaw a métti par la suite lañ jëw coupé euh, téléphone bi mhm. toog nañ ay une semaine yoo xam ne kenn mënul woote. Mhm. kenn mënul kii gars yi mhm. rumeur yi daw ñi naan am na ñun fa rey. Mhm. rumeur yëpp ñu gars yi ñu ko doon dégg. mais kenn deewu fa quoi. mais entre temps euh, nga génn ñu defal la li nga xamante ne ni moom mooy LP. Euh, euh, liberté provisoire. Oh, waaw. liberté provisoire lañ may. jékki-jékki woo ñu génne ñu man dew ma sax enquête. nuñ ma jàppee comme yow la mu fa tëddee yëpp euh, def fa li nga xamante ne moom mooy 6 mois ba tey mosoo dem enquête mosuma dem enquête nu ma duggee war lañ ma jàpp ne ma Moussa ma ne waaw ñu ma jëlal sa bagage kaay génn ni ñu la mandat dépôt we noonu lañ la jëlaatee encore génne may la euh, euh, liberté provisoire waxuñu ma kañ ngay ñëwaat waxuñu ma dara ba nii nii maa ngi nii toog ba nii yaa ngi toog waaw ba amnistie bi nu mu amee ak affaire yoon d' accord ok nga dem toog sa kër euh, sa génn ak léegi def na léegi li nga xamante ne moom mooy sept mois waaye keroog ba nga toogee dégg na ñu ngi libéré ñenn ñenn ñi vague de libération bi ban yëg-yëg moom nga amoon waaw kontaan parce que dama fa am ay frère yoo xam ne mm-hmm. dañ ma jege woon mm-hmm. ñun naan ñu tuddee force spéciale ñoom mm-hmm. Abdou Aziz Ndiaye ñoom Seck fu ñu toog ñoo doon toog bu leen di jàpp sax. Mhm. géej la leen jàpp. Mhm. ndax boobu maa ngi fàttaliku mooy élection législative yi. Mhm. bu li Sonko bi. la ñu waxoon ni ñu ñun ñu génn dañuy yëngal. d'accord bu ñu nee dañuy yëngal. gars yi vendredi la gars yi yëngal bu ñu yëngalee dimanche bi gars yi ne dañuy dem daje euh, géej. pour dem toog waxtaan en tant que patriote. dem lakk jën affaire yooyu comme gars yi nu ñu koy defee rek. patriote bu nekk grand parcelle affaire yooyu yëpp dem daje foofu waxtaan. sibir biir euh, gaa yooyu am na mhm. ñu si topp am na kuñ si jàpp mhm. kuñ si jàpp di traqué ñeneen ñi d' accord léegi man lu ma may sens mooy mhm. jour boobu dama yéex a dem da ngaa yéex a dem waaw da woo nañ ma man leen dama jàpp mais su ma paree ay 18 heures dinaa ñëw ok balaa may dem laay woote téléphone 18 heures ma woote fekk ñoom jàpp na leen ok bu leen jàppee après ma ne lii lu lu graw quoi géej la leen fekk ak dal leen bàyyi jàpp leen si laay dégg-dégg ñu chargé seen dossier ñoom ñëpp ne leen dañu yoroon ay cocktail molotov force spéciale dañu bëggoon songu BRT xaw ma daal lu nekk ñu mm-hmm. accuser leen ko. ñoom tamit ñu jàpp leen yóbbu. waaw waaw ñu ngi jàpp ñëpp uh-huh. genn wàll bi yëpp samay xarit la. fekk yow génn nga Sanka. Uh-huh. ay ñoom Abdou Aziz Nia. Mm-hmm. ay ñoom Mbaye Togala ñoom mm-hmm. ñëpp. si lañ leen jàpp. ba nu leen defaree François Makabu. si lañ la xamante ak François Makabu. noonu si à d'ordre politique. Mhm. lañ nekkoon di liggéey si affaire oto affaire yooyu mhm. ñu gis euh, buñ ko jàppee gars yi dañuy xool sa portable ñun gis nga doon déggante lépp ñu jàpp ko. ok si lañ jàpp François par vocal ak ñoom seen. waaw kay mhm. ba nu ko jàppee. ba nu mu lu am central ba nu mu nu mu nu nu mu fa deewee ko mhm. waaw mhm. comme ni nga ko waxee tey ñu jàppoon fa say xarit euh, nga dégg euh, vague de libération bi euh, nga dem pour dem gàttandu leen. mais tey Moussa est-ce que yow yaa ngi doon xaar boobule vague vague de libération jékki-jékki rek ñu ne tey dañuy libérer ñëpp. waaw man xaaruma ko woon ndax. li tax mhm. xaaruma ko woon parce que mhm. man bu ma déggee amnistie bi dama man ma ñu ko ñu ko opposé si laa bokk mhm. parce que mun ma ñu jàpp doomu aadama ñii ñu rey leen ñu dagg seen loxo man xam naa si booy boo xam ne mu ngi sétéwoo nii nii nii heure ba tey mu ngi si biir troisième opération am hmm? lañ ko dóor bal bal bal réel lañ ko dóor troisième opération am moom la nekk di si biir bu euh, bu mu demee sétéwoo suba trois heures comme nga dem ngoon tey su ba suba si ngoon ñu lay doog jël mais mais mais aussi euh, lan mo war euh, lolu parce que souvent da ngay ñu né euh, genre ni di gaañu si mané festation yi kenn du leen nango laal. waaw kay kenn nango laal. mom mhm. bu yaay ji demee kenn nango laal. il mhm. fallait que affaire bi siw. Mhm. gaay yi jël ko duggal ci groupe passé bi amna ku affaire yoy non wa Fatima meng mooy kii secrétaire Sonko bi. dem fële jël ko en charge. ñu fay dogal laal. légui nak lolu dara bu mu perte mo bëri. d'accord. deret bu mu perte moo bëri. Mhm. moo tax si biir na troisième opération fu mu ne nii rek ñu ngi lancé waat trop pour troisième opération bi pour don de sang bu ñu ko war a defaral. don de waaw patriote yi moom ñaar yëpp ñoo ko mayee deret. Mhm. maa ngi tëdd a mhm. euh, dimbali nga dem la am. 17 ans 17 ans AB plus la. ngay nu mu tudd. Euh, jàpp ma turam. jàppoo turam mais yor naa ay numéro téléphone mhm. seen waa kër ak affaire képp ku ko bëgg a may deret rek su ma mhm. contacter mun naa ko mhm. mettre rapport ak seen waa famille léegi nag loolu noonu doo gis ba pare ngay nangu ay amnistie d'accord amnistie bokk naa ñu gën a opposé mais tamit dama ne tamit tant mieux parce que ñee yàgg nañ fële ñu may wax ni deux ans lañ fa def force spéciale kon seen njaboot sonn nañ ma xam seen jabar yi des bi demeewul noonu kon ma ne tamit baax na si benn côté mooy ñu bàyyi leen mhm. ñu ñibbi seen njaboot mhm. mais tamit maa ngi lancé appel mooy gouvernement bu fi nekk mhm. ñu ñëw d'accord dinañ si ñëw parce que en euh, fait euh, gis nañ ni tamit ni parce que souvent da ngay dégg ñu ne yéen tey euh, seen leader bi moom génnam bi da ko waxtaane ak ki nga xamante ne ni moom mooy Macky Sall moom mu fi nekk actuellement waaw loolu moom man gëwuma ko quoi ndax su ko doon waxtaane neneen lay demee moom day nekk candidat wala dara gëwuma loolu Macky Sall dossier bi tàng si loxom mu ndax soo sa munoo jàpp ay doomu aadama. Mhm. tëj leen si lu dul yoon ba pare nga am mhm. conscience tranquille mhm. man loolu laa jàpp ni quoi Macky Sall moo dem ba xam ne ñii ko dugal si lii dañ koy dugal te moom moom lii moo gënoon si moom moo gënoon sedd si moom moom Macky Sall waaw lu tax su génnewul woon ay ñoom Bassirou Diomaye Faye génnewul woon détenu politique yi Bassirou Diomaye Faye rëbës lay jógee wala Cap euh, Cap Manuel lay jógee. dem mhm. directement. Euh, d'accord parce que te boobaa uh-huh. du du du yomb si moom mu siggi pour jàkkaarloog. Bassirou uh-huh, Diomaye uh-huh. kon li parce que euh, léegi léegi yaa ngi koy wax nga ne tey loi d'amnistie bi d'accord ci waaye aussi am na benn côté boo xamante ne diñ ci d'accord parce que ñenn ñi ñoom jot nañ fa def li nga xamante ne moom mooy deux ans de de prison dëgg la loi amnistie bi jàll na waaye sànq ñu ngi jot aussi si ay information que ne am na ñoo xamante ba tey aussi génn guñu. am na ñoo xam ne ba tey génnaguñu. loolu rek loolu te dañ leen jàppoon si manifestation yi. waaw loolu xam ne loolu du lu mhm. tey man mii am naa si jarbaat boo xam ne sama doomu euh, seen taaw. Mhm. taawam. Mhm. moom ñu ngi ko takkal bracelet. bracelet te bracelet bi. yàqal na ko liggéeyam yu bëri. ndax dañ na ko euh, zone euh, Padois bi mënu ko bousee. d' accord d' accord ah ok comme tey cela veut bu ñu la ko takkee dañ leen limiter loo. fii nga war a dugg fee waroo fa dem. léegi nag dañ la koy limité am na beneen booy boo xam ne. Hmm. bracelet bi dafa dem ba infecté tànk bi. mu ngi dëkk Grand Yoff. Hmm. booy boobu. Hmm. mu foofu ba léegi maa ngi ñaan gaa yi def nu mu gën a gaawee tekkil bracelet yooyu noonu ndax bracelet yi dafa diis dafa ngan te su su su su déchargé doo am jàmm day vibré. comprendre nga. Mhm. ñoom war bu ay xale yu ndaw lañ. Mhm. ay vingt ans la ñu am ak yooyu noonu nan leen bàyyi ñu dem liggéey du ñu sàcc du ñu malfaiteur. Mhm. maa ngi ñaan daal euh, gouvernement bii di ñëw. su taxawee dee mu taxaw rek. Euh, juge yi woo leen génnee loolu quoi. te bëgg naa ñu dédommager leen tamit. parce que parce que ñoom a nee nañu euh, la ñu jot a loolu nguur bi mënu leen ko fay lu ñoom lu ah, kii di yàq. pour man ñoom yàquñu waaw non du loolu de comme ñoom tey euh, la ñuy la ñuy jot a perdre. waaw mais loolu dëgg la loolu euh, dëgg loolu tey nguur gi mënu leen ko may. loolu dëgg la ndax nit ñi gis naa ñu si perte seen jabar. Mhm. gis naa ñu si perte seen liggéey. Mhm. ñi si am na ay yoo xam ne. Mhm. seen jàng foofu la jaaree sooxe ba tey kon loolu kenn mënu ko fay. mais tamit nit ki soo ko jàppee. ba bàyyi ko. te deful dara am na lu yoon wax. loolu noonu lu yoon wax nekkul lu lu yon wax lañ bëgg ñu ñu tek ko ci ñom mhm. ndax ñom war na leen war na leen encadrer waat ba ñu mhm. delluwaat société bi quoi mhm. ndax ñu bëri tay seen liggéey yàqu na ci gis na ko quoi mun na ko téma d'accord tay askan bi def vote euh, yeen ki ngeen bëggoon pour mu jël réew mi euh, yalla euh, nangu ni mom mo na ra wutu fi njitum réew bi le président Macky Sall gis na ni nak ni bëri won na ciow wa yalla def mu genn fi nga xamantene ni mom moy premier tour te discours bu ñëk bi mu ñëk def la nga ci jàng garde parce que nee na dina xeex lépp loo euh, loo xamante ne ni wàllum corruption la maanaam wàllum sàcc bi te dina jéem a xool aussi naka lay def ba dund gu cher gi mu jéem koo allégé. waaw loolu la ñuy xaar si moment te am nañ am nañ confiance ni moom euh, loolu dina ko def. Mm-hmm. leneen lu may wax lu dul lu may wax lu ne. mooy mm-hmm. ñun suñu choix bu ñu porté si ñoom. Mm-hmm. Euh, regretté wuñ ko. li tax regretté wuñ ko. li tax mooy. ñun gis nañ ni ay jeunes lañ ñooñu comme ñun. ay jeunes yi dynamique. yu seen loxo set. te nekk ay panafricain yoo xam ne bëgguñu dara lu dul Sénégal defar mhm. Sénégal mhm. ñun ñu jàppale leen mhm. ñun ñun ñu nekk tam ay panafricain kon tey ñoom suñu ñëwee ñu jàppale leen bu ñu dugg kaso bu ñu génnee lañ gën a sax am détermination yéen waaw ndax campagne bi yëpp dañ ko campagne dem massifier porte a porte lépp mu Grand Yoff lañ dëkk te Grand Yoff ku ko xam ñëwoon nañ ni Khalifa Sall nañ ne woon nañ Khalifa Sall moom Dakar ne woon nañ ni euh, Barthélémy na loolu Khalifa Sall Euh, école Grand F2. Il faut que Sall le voté. D'accord. bureau 6. 13 mhm. bureaux fa 13 100 13 largement. Mhm. lañ leen fa dóor. Mhm. Euh, Grand nous nous Grand a am ñu lu man bokk qui si élection locale de bu fa si euh, si waa Pastef Grand Yoff ñoom dañ mm-hmm. dem Touré mm-hmm. ñoom euh, Tambidou ak ñu fa mm-hmm. nekk ñëpp dañ opposé woon bureau bi yëpp dañu opposé woon na duñu jàppale maire bi d'accord ndax li tax ñu ne duñu jàppale maire bi bilan moom nan loolu neexu ko woon mais booy dañoo taxaw opposé wu ne ñii mënuñu euh, maire bi euh, bilan am ñuy fiscaliser bilan am ba pare xëyaat àndal ak moom di battre campagne d'accord ndax ku xam Pastef xam ne si ay ay ay ay ay valeur la ñuy dox

ma dégg Barthélémy Dias man bu jàpp naa ni Barthélémy Dias moo yàqal euh, Khalifa Sall. ci ban anam loolu la ko yàqalee. waaw xam nga lu ko yàqalee parce euh, na ni moom moom moo euh, tax mu yàqal ko. Uh-huh. ñëpp xam nañ ni am na rôle bu Pastef joué woon si Yewwi. Uh-huh. ba maire yu bëri falu. dëgg la Barthélémy Dias. Uh-huh. maa ngi fàttaliku bu muy njëkk a battre campagne. Bamba Fall da ko néewal doole. mooy xam nga Barthélémy Dias dafa bëri ay jigéen. Barou Dias da ko song ak ay nervem mhm. gaañ ci ñu bëri. Mhm. ñemeetul def caravane. Mhm. Sonko la woo. mu bàyyi campagne am boobu mu ngi doon boobu listam jàllul. si élection législative yi. ah euh, boobu mu ngi tourné woon tournée nationale mu ñëw war a noppaleeku. Barthélémy Dias woo ko ne ko doomu ndey. mu ne ko tey dama war a def caravane. mais dañ ma songoon. te ragal naa ñu songaan ma. dama bëgg nga ñëw soutenir ma Ousmane Sonko ne ko euh, damaa sonn tey sama jour repos la léegi par la suite Ousmane Sonko ah. nangul ko loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. jour repos boobu. Mm-hmm. mu def ñu def la suñu groupe yi ñun groupe Pastef yi. d'urgence réunion d'urgence pour ñu ñëw rejoindre ville. Barthélemy Dias fële. ñun ñu bàyyi lépp man dama xëyoon sax liggéey dama ko bàyyi. taal sama moto ñuy taal seen kii ñu dem. ngeen dem jàppale ji ko ñu def caravane bu exceptionnel. ñu wër foofu maa ngi fàttaliku bu ñu ñëwee ba. Euh, mairie Medina mhm. dañ fa fekk nervi taxawon armée mhm. mais bu ñu ñëwé mhm. ñu gis ni Ousmane Sonko lañ andal ak jeune yi ñu bëré déterminé wu dañu daw dugg ci biir d'accord ñom dañu daw dugg ci biir OK nangu ñu ko songu attaqué wuñ ko ñu tej ñu tej ñu tej euh, buntu mairie bi ñu taxaw fofu woy suñu woy ba paré tourner wat delu policier yi ñëw nañu avancer len quoi bay len ci affaire ñu wër dafa tour ñëwaat taxawat fofu ñom nangu ñu genn ci lañ jaar nonu jaar Grand Yoff dem terminer parcelle. Mhm. fa lañ tëjee meeting boobu noonu. kon Barthélémy Dias lépp lu mu attaqué Sonko waroon na xalaat loolu. d'accord ak yeneen ak yeneen quoi. Mhm. léegi nag su ma gisee. Mhm. Barthélémy Dias ñëw attaqué Sonko. Sonko attaqué mu attaqué waat Sonko man dama gis ni moo ko tey pour yàqal Khalifa Sall. d'accord ndax tey moom xam na ne Khalifa Sall aase na. dernière élection am lay dernier cartouche am lay. lay moom la doon def noonu. waaw su fa jógee moom mooy dafa bëggoon mu échec moom mun a jël réew man loolu sama jàngat bu rëy. d'accord ok yow yaa gis loolu noonu. waaye aussi tey euh, gis gis nañ ki ki nga xamante ne moom mooy euh, njiitum réew bu bees euh, semaine bi di ñëw. Hmm. la war a teg gouvernement bu bees bi yow lan ngay xaar ci boobu la gouvernement. waaw gouvernement am nañ si yaakaar bu rëy ah. Hmm. ku xam Bassirou Diomaye Faye. Hmm. Bassirou Diomaye Faye il est seule personne boo xam ne biir Pastef amul amul ku koy conteste parce que lépp ci droit la ko teg. du xëccoo dara. ci droit moom droit ay code lay wax. lépp loo ko wax mu ne la code. Euh, mhm. côté par parti bi la la wax. Mhm. su nekkee lii la wax mu ne lii. Mhm. kon moom amul xaar ma yàlla kenn. moo tax euh, succès bi mu am ñu ñun bettuñu. bu ko Ousmane ko waxee. ñun ñun ñuy nekk biir Pastef. on sait di Pastef xam nañ ni. Euh, Ousmane Sonko du choisir kenn ku dul Bassirou Diomaye Faye ndax moom moom la wóolu xam nañ seen affinité te ñoom ñaar léegi bu mu ko choisiree gañe na bu mu ko choisiree gañe na. xaaruñu dara lu dul mu taxaw mu taxawal benn gouvernement. gouvernement bu dynamique boo a ne dina liggéeyal Sénégal. Mhm. te wóolu nañ ko. te xam naa dina ko teg. Mhm. te su ko su commencé ngeen jàngatee loolu parce que moom tey euh, ku nekk xam na ni pour mu mun a euh, commencé liggéey bi euh, il faut mu def passation de service le 2 avril ak ki nga xamante ni moom mooy njiit bitum réew mi actuelle mais gis nañ ni boobu ba léegi euh, coow laa ngi bëri ñii naan ko fii lañ lay xaaree diw la ñu bëgg bis boo toogee nga defal ñu ko ministre nangal ministre sàngam waaw man moom du ma bokk ma si loolu quoi. man mhm. su may nekk militant damay nekk militant euh, discipliné quoi. nit ki ko jiital ba pare di ko fa xastal. su dee yow yow nga ne Sonko mooy jomaay jomaay mooy da nga leer na ni Sonko tey jomaay léegi moom mooy njiit. su ma nee jonko déggoo mën a la. Mhm. dina dina si diisoo ak mhm. kon moom mooy gouverner. te Sonko moom soxorul. ñëpp gis nañ nu mu taxawee si campagne bi. da ko baataral campagne. Mhm. jiital ko waaw jiital ko. Mhm. bu mu demee ba léegi gisoo gisoo Sonko def déclaration. kon Sonko te tegu fa sa fa ba. na yàlla. te mhm. xam na ni moom faluñu ko kii lañ fal. te xam naa dina ko jàppale. jàppale bu mu koy jàppale mooy mu retiré wu. du retiré wu. Euh, carrément carrément. mais dina ko bàyyi mu déroulé. ba pare mu nekk conseiller am. Hmm. yow loolu nga gis yow euh, mu jël mu Sonko fal ko tey comme conseil bugguma mu fal ko premier ministre. bugguma mu fal ko dara lu tax dama xam ni. Mhm. Euh, su ko falee premier ministre. Mhm. Ousmane Sonko dayam toll na foo xam ne. Mhm. fépp fu ñu génn ñoom ñaar rek. ñu ànd nit ñi moom la ñuy Ousmane Sonko gën a wax te loolu mun na ko perturber. d'accord kon man lu ma koy conseillé mooy mu bañ a fal Ousmane Sonko mu def ko simple conseil. bàyyi ko mairie Euh, Ziguinchor comme waa Ziguinchor wóolu nañ ko ba fal ko foofu maire mhm. mu liggéey foofu quoi lu tax mhm. sénégalais yi gën ko wóolu mhm. ba tey Bassirou Diomaye Faye bëgg nañ su fiy jógee Ousmane Sonko wóotu ko ah yéen loolu da yéen daal loolu ah, daal moom ngeen gis bu Bassirou wàccee Sonko jël réew mi waaw objectif boobu lañ lañ objectif bi nag du si ay wax si ay jëf la jëf bi mooy am na euh, lancé euh, Euh, journée de nettoyage bu ñu euh, gis nañ ko euh, actuellement ni mu ngi war fépp naan pour que ni mbedd bi nañu fa bàyyi di fa sànni tey ay ordures mais tey mais tey est-ce que Pastef yéen ni ngeen di doxalee di ngeen ko mun a imposer réew mi ba parce que tey ku nekk xam na ni yéen li ngeen di def bokkut ak ñeneen yi ñoom seeni ay doxalin est-ce que est-ce que yéen di ngeen réussir boobu pari waaw gëm naa dañ ko réussir quoi mhm. ndax majeure partie mhm. sénégalais yi Ousmane Sonko lañu àndal Bassirou lañu àndal mhm. dara ku gis Pastef nu muy doxee xam nga ni sax suñu manifestation suñu paree toq mbuus du traîner. Mhm. da ngeen di dajal lépp ngeen jël ko cultiver suñu bopp. Mhm. loolu lañ bëgg mu law ba Sénégal te gi gëm nañu majeure partie sénégalais. Mhm. commencé nañ adhéré si loolu. ndax ay patriotes lañ. kon léegi loolu noonu lañ bëgg a lancé. Euh, journée de nettoyage. national boobu noonu. te loolu du day commencé rek mais du fi yem. d'accord bëgg nañ balaa jomaay euh, euh, di ñëw si réew mi. mu fekk dëkk bu set. ba tey Rwanda. Mhm. di fa d' accord mais mais mais xam nga tey tey bu fekkente ne ni euh, yéen patrie yoddi da ngeen bëgg a jël euh, liggéey euh, liggéey tey liggéey bi yëpp ngeen bëgg koo aakimoo léegi nag état moom ñi mu fi teg nag pour ñoom ñuy nettoyer dëkk bi nag. ñoom seen liggéey ko lan leen di ñoo da leen épaulé rek. ah d' accord leen di dooleel daal te teewul am na ay ay manquement yu am mhm. léegi nag ñun dañ leen yokk doole rek ñun ku nekk mu ngi sa liggéey dama occupé sa liggéey mais mhm. chaque mois si dernier mois si mhm. si si si si weer bi dernier dimanche si weer bi ñëpp génn bàyyi seen lépp ñëw nettoyé dëkk bi loolu defaluñ ko Bassirou Diomaye Faye suñu bopp lañ ko defal quoi. d'accord te loolu la ñuy doom xaar si Macky Sall amaana def ko. Mhm. gis nañ ni Bassirou Diomaye si lañ mhm. teg tànkam. Mhm. waaw d'accord tey bi nga duggee euh, ca prison ba lan la la yàqal loo xamante ni euh, ba tey da ngay toog di ko rëccu. waaw lu ma yàqal pour man yàqalu ma bëri ah. ndax yàlla dafa ma booleeg ay relation nit yu baax yoo xam ne. samay ñu may liggéeyal. ñooñu ay patriote ndax ñom bu ma duggé fofu rek mhm. seen xol dafa sot mhm. man ci ciy rendre hommage sama ben client bo xamni mom mhm. lay liggéeyal ni mu ngi tuddu Moussa Diak ak madame Diak ñom ñaar ñooñu confiance lañ am ci man lepp lu ñuy liggéey man lañ koy man lañ koy confier parce que man damay def affaire bâtiment affaire aluminium fer tout ça entreprise d'ailleurs petite entreprise d'ailleurs yor di ko def légui nak bu ma duggé fofu man tek amna ben dossier buñ traité won santé bu mag buñ traité won waroon ok yow ak ñom wa waron ko finaliser par ñu japp ma d'accord bu ma wooyee pour jox ma ko. rek mhm. sama man sama portable mu ngi doon dox mu ngi woon sama soxna. ok bu ma woowee sama soxna ne ko man dañ ma téye. mu ne mhm. loo mënti def Moussa soo déggante ak moom wax ko mu woo ma. Mhm. jox ko sama numéro. bu ma déggante soxla si jox ma numéro bi ma woo ko bu mu ko woowee. mu rassuré ma. ne ma xam naa ni Sénégal nga doon xeexal. nekkoon si lu ñàkk fayda xameewul la ko. léegi lu ñu doon wax tënket du mu ko jox kenn. naa ko xaar ma bàyyi la moom waa ji moom moo la wax loolu waaw moo wax loolu mhm. léegi nag bu ma waxee loolu ma xam ne mhm. loolu tamit dina met xaw ma kañ laay génn mhm. ma mettre ko relation ak sama sama sama d'accord mu dem defal ko début defaraat ko lépp affaire yu finalisé ba loolu santé boobu noonu finalisé nañ ko ba si lañ nekk looloo tax sama dara taxawul d'accord dangaa continuer waat parce que euh, gis nañ ni ñoom ñenn ñi euh, ñoom seen liggéey dañ ko fa jaaree ñàkk parce que tey liggéey ñooñu euh, boo amoon kàddu boo leen di wax. waaw lu may amoon kàddu ñun toog génnuñu rek toog parce que créé mouvement des 4P. Mm-hmm. waaw parti politique Pastef les patriotes. Mm-hmm. affaire yooyu quoi. Mm-hmm. am na mouvement boo xam ne. tey ñu ngi ci nekk ñoom Diop Taïf. d'accord ñoom leer ñay leer. si lañ bokk. Mhm. ay ñoom Cheikh Baara Ndiaye ñoom ñëpp si lañ bokk. Mhm. loolu dimanche bi nii vendredi bi rek war nañ dem di gisante euh, le maire Jamil Sané. Mhm. teg nañ ay projet maire de Parcelles Assainies waaw Parcelles Assainies. mais muy maire bu baax. boo xam ne mook euh, Bilal Diatta. bu ñu nekkee si kaso bi. maire Kër dañ doon jàppale prisonniers yi bu baax. maa ngi fàttaliku. Euh, Korité xaw ma Tabaski bi paase. man mii rek. bénéficié woon naa si ñoom cinquante mille. macha allah yoo xam ne chaque prisonnier jox na leen ko. yoo am mhm. jabar. Mhm. pour ñu dimbalee ko. kon dimbale ko seen njaboot ñoom bu ñu génnee ñoom ñoo ñu woowaat. Mhm. jàppale ñu. te gis naa ne jàppale boobu day law. Euh, ñu fa nekk si mouvement bi. ñëpp amul ay semeur. ñii ay ouvrier lañ ñii ay commerçant lañ. ñii ay chef d' entreprise lañ. ñii ñëpp te loolu dañ ko dañ ko lancé am nañu ay partenaires yu ñu am. yu ñuy jàppale si loolu. kon gars yi xëy la hace a perrec képp ku mun a jàpp rek mu ñëw jege si renseigné wu si mouvement boobu pour jàppale jàppale détenu yu ko waaw euh, ba pare euh, tey ban tànk moom ngeen taxawee pour jàppale ñenn ñi nga xamante ne ni ñoom ñu ngi ci biir te ba tey génnagul te ku nekk xam na ni weeru euh, koor gi ci moom la ñu ne te yow mi xam nga weeru koor nu muy mel ci biir prison waaw léegi nag loolu noonu mu mm-hmm. fa xamoon ñu bëri génn nañ quoi mm-hmm. gisuma ko mais su mm-hmm. nekkee am na lu des dès maintenant information boobu nañ ko jàllale si ah. mouvement bi dañ def parce que démb euh, parce que démb Babacar Kébé Babacar Kébé bu bok euh, ci yeen mom moma don jox euh, information boobule. comme que ni ñen ñi génn nañu mais amna batay ñu fa dess wa léegi lool dañ ci informer wu. suñu mhm. lekkee lool deug la. dès mhm. semaine prochaine dañ def benn conférence de presse. Mhm. pour wax si lool ndax lool lu warul am la. mu ñu am ci si ci na si ne leen. génnee ñi bay ñi. lool waru mëna am. d'accord ba paré lool nag tam dinañ ko yéggalé fuñ ko wara yéggalé yeggale. waxtaan ko ndax lool warul am quoi. dinañ ko luñ ci mën dinañ ko def ba ñu génn. parce que fofu du sen place. d'accord té la ngey wax jeunesse bi. waaw jeunesse bi lu mu leen wax rek ñu am yaakaar yaakaar boobu ñu am si Bassirou Diomaye Faye ba fal ko. Mhm. Euh, ñu gën a am yaakaar te may ko temps. Mhm. Mhm. may ko temps surtout ñu may ko temps. ñu may ko temps bañ koo précipité. waaw mu mu bañ mun a dérouler ay programme am. ndax kenn du euh, jiw tey rek. góob tey. dëgg la waaw te Sénégal euh, mal bi dafa dafa profond. depuis année soixante yi ba léegi. kon du ñëw si benn deux ans wala benn un an rek. mu defar dina am dafa ay réformes yoo xam ne. fii ak trois ans fii ak cinq ans. dinañ gis ni. kon mandat bu ñëk bi daal euh, mom daal fa ñu may ko temps mandat bu ñëk bi duma né mhm. dina tek ay acte yu fort mhm. yo xamné mhm. dina dina dina ñëw nank mais fi ak deuxième mandat bi lay gis ni sénégalais yi dañ gis euh, changement deug deug deug deug deug bu ñu bëgg dañ ko gis ci ki té man loolu lu mëna am la parce que vap patriote pat, vat, euh, campagne agricole patriotique bu ñu lancé won ko lancé won ko pastef yépp ci duggoon chaque raison. Mhm. chaque euh, département fexe woon mhm. nañ ba am souf am tool di ko kon fofu non man gëm mhm. na ni ñom fofu la ñuy woowaat rek. fexé ba andi ay moyens yu doy. jeunes yi wat ci bay jakarta yu nekké ci Dakar. ndax loolu du liggé du métier delluwaat si tool yi. ndax bu ci nekk sa papa am na suuf boo xam ne tey soo demoon ñu financé la. jox la ay moyens nga mën ko beuy quoi. d'accord waaw te lu sonaloon béykat yi du lenn lu jiw bi. semence bi ñuy. semence bu gars yi di détourné mhm. ak affaire yooyu noonu te mhm. loolu détournement moom xam naa dina fi jeex mhm. corruption man xam naa dina fi jeex comme moom na ko waxee li Basiru ak Sonko ñoom ñaar rek seen jiwo boobu noonu semence euh, corruption dafay jeex mbaadu mbaadu réew mi kon euh, fii fii leen nar a jaaree dem yoon euh, jaaree ci yoon looy tàggatoo daanaka waxtu bu ñu jagleloon tir à sa fin waaw lu may tàggatoo rek di kontaan si émission bi di wax ni na sénégalais yi gën a dal Euh, jàppale Bassirou Diomaye Faye mhm. ndax ku am xam-xam la te ku mhm. dal la te ku mhm. bëgg Sénégal la euh, nañ gën a nañ gën a jàppante daal jàppale Bassirou Diomaye Faye ndax euh, Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye loolu daal laay wax quoi di wax tamit patriote yi moment bii nag transhumance yi commencé na bëri transhumance yi transhumance lu jóge fee di ñëw fii ñëw paduwaa bi ma nekk rek maa ngi koy maa ngi di remarquer foofu d'accord nañu ñëw ay ñu ko nekkoon fii si base bi di ñu ñu déroulé. continué d'accord duñ ñëw ay transhumants yu ñëw ànd ak seen xaalis jënd ñenn ñi. Mhm. ñëw nekk si kaw taxawal ay cellules nekkaat si mhm. kaw. loolu day andi ay frustration. loolu laay éviter ñëpp. Mm-hmm. te man gëm naa ni passé euh, Grand Yoff bi ma nekk mm-hmm. ak nu ma gisee nu muy demee mm-hmm. foofu ay ñoom gañ dema nekk fa te gañ dema mooy secrétaire général bi moom lépp lu muy dox rek si euh, si dëgg la koy teg ak si yoon gëm naa ni foofu moom dafa am quoi mais yeneen commune yi laay wax ñu bàyyi loolu seen xel d'accord si transiment yi daal ñoom ñu bëgg a ñëw daal waaw mais euh, tamit tey Moussa est-ce que jarul yéen tamit ngeen yaatal rek gën ta yomb non yaatal mënul ñàkk mais ak ñu seen loxo set d'accord waaw ndax gars yi ñu ngi naan système système système bi du nit Mhm. système bi système bi environnement la. d'accord système bi. Mhm. am na si biir système bi. ñu fa mhm. nekk ñu jub. comme mun nañ citer ñu mel ne ay ñoom marité yi. li tax Sonko nangu ànd ak ñoom. kenn mosu ko dégg si détournement. mais nag doo ñëw mel ni ñenn ñu may bañ a tudd. yor ay milliardaires yoo xam ne milliardaires yoo xam ne mosuñu am entreprise. ba pare ñëw bëgg a transmettre ñooñu moom su ñëwee ñun militants yi ñoo taxaw ne duñ duñ fi yegg si. d'accord kon ñii nekk si kaw ñooñu du leen bàyyi sax ñu yegg si mhm. quoi kàddu yi leen naa ñu Moussa euh, man ni tamit di am mbégte ak contentement dalaloon la fi nga xamante moom mooy euh, suñu émission i ah, euh, jaar-jaar ak naka di jaajëfal li nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci régie bi ku si mel ni Dominique di jaajëfalaale mois vous leen vous vous d'ici là portez-vous bien et restez nos programmes contenus sur Public SNTV.